alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidi almursaliin nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaïn amma baad noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi bind nit bindin wu jub teral ko jox kom xel jox ko tiraangay diine goreel ko. ba mu am liberté ci jaamu kenn ku dul yàlla goreel ko ci toroxtaange joxo xam ne mbindeef a ko koy teg yoonalal ko xallal ko aw yoon woo xam ne ca ak texeem nekk ci àdduna ak ci àllaaxira xéewal ak yërmaande yàlla na nekk ci yonentu yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobu nga xam ne dundam gépp ak yitteem jépp ak li ko tax a doonub yonent ak li ko tax a ñëw sax mooy yërmaande àgg ci doomu aadama yi ak fuñ mën di nekk ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dañ laa yónni yónni la lu dul nga doon yërmaande ci bindeef yi mbokki jullit yi fukki fan ci weeru décembre saa bu ñëwee ci am at nit ñi ci àdduna dañuy fàttaliku fàttaliku goo xam ne loni moo leen ko chargé ñuy fàttaliku benn déclaration des droits de l'homme lañ koy tuddee déclaration boo xam ne dañ ciy fàttaliku àq yi nga xam ne mooy àqi doom aadama su boobaa nga dégg ñépp di wax ca penkoog ca sowoog fu doomu aadama yi nekk nga dégg rajo yaag journaux jumtuwaay yi nga xam ne ñi ngi koy jëfandikoo ci sun jamono ñépp di wax ci àq ji nga xam ne moom la doomu aadama yeyoo loolu nag doon mbir moo xam ne du lu bon lu baax la ñuy fàttalente àqi doomu aadama waaye lay kéemaan mooy jullit yi bu ñuy noor ca loola di ca waxtaan day mel ne musuñoo xam àqi doomu aadama lu dul ci déclaration boobee nga xam ne ma nga amee woon ca loni kon loolu moo tax mu jaadu jullit yi taxawaat delsi fàttaliku lan mooy àqi doomu aadama ci l'islam droit de l'homme en l'islam mooy lan ñu xam ne ren jamono yi ñu koy fàttaliku soreewut ak jamono yi nga xam ne ci la jullit yi di taxaw arafa mu nuy fàttali beneen déclaration boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko defoon ca arafa kon bu ñuy fàttaliku aqi doomu aadama ci lislaam danañ ci taxaw ay taxaw seetlu yu xaw a takku taxaw seetlu bu ci jëkk moo di Occident muy réewi tubaab yi nga xam ni ñoom ñoo jiite woon déclaration boobu amoon 1948 gannaaw bu ñu defee déclaration boobu continué nañ ñoom di coloniser ay réew yu bari sooy boo ñu ne def leen sax ay jaam loo xam ne ëppaat na ñaar fukki at ñi door a tàmbali nag di leen libéré gannaaw loolu libéré goo xam ne ci ay anam la waaye anam yu gën a bari buumi njaam yooya dogul ba fii nu taxaw di wax ak yéen bokk na ci mbugal yu metti yoo xam ne doomu aadama yi jànkonte nañoo moom te dañaguñ di jànkonteeg ñoom ba léegi moo di li ñuy tudde boddikonte ci biiru xeet muy doyadal xeet yi nga xam ne nit ñu ñuul lañ ak ñu weexut tubaab yi suufeel leen ba jàppewuñ leen loo xam ne lu am solo la lu bare bari ci bërëb yi ci réewi tubaab yi tey nañ fonke mala muy lu mel ne muus ak xaj ak lañ leen di jox ci orma ak ci tiraanga ak nañ leen fonke fonkewuñ ni jeneen doomu aadama joo xam ne bokk ñoo ñoom aw askan kon déclaration boobee day mel ne lu ñu waxoon ca kaw la tasaare ko waaye sore na lool ak li li ñuy dund ñaareel ba moo di lislaam li dal jullit yi moo di dafay diine joo xam ne bu ko nit ñi dundul bu ko nit ñi dundul ci seeni pas-pas dund ko ci seen i jaamu yàlla waaye dund ko ci seen i jëfin ak ci seeni i day dem ba jëmmi jamono mel na nekkatu fi moo tax lu ñu yëkkati lu tuuti tuuti lu am maanaa jullit yi niñ koy xoole mooy nun mosunoo gis lu mel nii ndekete booba loola mi ngi fi ñoom waaye ñàkk gaa dund ak ñàkk gaa wane personnalité yu wane dëgg-dëgg lislaam moo tax ñu baree bari gisatuñu lislaam dëgg-dëgg donte photo baa ngi fi nataal bi nga xam ne boo xoolee da nga gis yu bari yu koy parasanté mu nuru ko nit ñaa ngi julli ba tey ñu ngi woor ñi ngi dem màkka waaye personnalité jëmmi jullit ba nga xam ne nag mooy jullit ba sori gim nu sori tey moo tax lu yëkkatiku ci ay principe wala ay déclaration yoo xam ne dafay nuru lu baax rek ñu ne nun mosunoo gis loolu ndekete fekk loola lu ko gën mi ngi ci alxuraan ak sunna nu dend ak moom waaye sunu ñàkk a jàng ak sunu ñàkk xàmmee mooy tax duñ yëg loolu ñetteelu taxaw seetlu bi moo di ne lislaam li ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg mooy xett li doomu aadama yëkkati ko ba mu doon nit jox ko tiraangaam jim yeyoo ci kaw suuf fexe ba nit yëg ne ak moomeel ci kaw suuf yàlla rekk moo ko yeyoo waaye ku dul moom dañu laa moom ku dul moom dañuy jëf ci yow dañuy dogal ci yow waaye du yaa mën a dogal ci keneen borom bi tabaraka taala kuy dox ci kaw suuf ak lum la mën a jox ci daraja ak i kàttan ak i man-man ak doole moo yor sa dund moo xam kañ ngay juddu kañ ngay faatu moo xam kañ ngay wopp moo xam sa man-man beeg sa am-am bi fan la tàmbaleeg fu muy yem borom bi tabaraka taala rek mooy kenn koo xam ne moo tiim ñépp ci lépp ku dul moom ab jaamam ngay doon bu doyadi itam nga nag jaam bu doyadi boo xam ne da ni ngay reggee noonu ngay xiife ni ngay wéree noonu ngay woppe ni ngay xoolee sax noonu ngay nelawe ak koo mën a doon kon yow ku doyadi nga borom bi tabaraka wa taala rek moo mat noonu la lislaam ñëw di ko jàngal si nit ñi kon déclaration boobu ma junj léegi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon na ko jullit yi lu ëpp léegi fukki siècle ak ñeent junni at ak ñeenti téeméer yu tegal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca montagne um Arafat mu taxaw jàkkaarloog jullit ya mbooloo ci jullit yi daje moo xam ne musta daje te tol noona mu yëgal leen ay yëgle yoo xam ne ci béréb booba jullit bu fa jóge bu nekk yóbbaale na ko ma ne déclaration boobu su ko jullit yi xamoon te dund ko kon duñu aajowoo sax beneen déclaration kon ñoom sax seen personnalité dana leen may jamono yañ nekkoon 1948 di def déclaration boobu ñi indi déclaration yonente ba sallallahu alayhi wa sallam gaaral leen ko ndax ñi xam ne texte yooyu ñu tegoon lu ko ëpp valeur mi ngi ci biir lislaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam buñ xoolee lenn ci texte yi nga xam ne moom la doon wax ca arafa ca bis boobu lam jëkk a wax daf ne yéen nit ñi déglu leen li ma leen di wax tey ndax maa ngi wax ak yéen te wóoruma ndax danaa mën a dajee teeg ndaje mu mel nii ba faw wala déet kon kooku mooy xajatul wadaa mooy aju tàggoo ba boroom xam-xam yi takk la fa daje woon ci ay saxaaba dañoo waxoon ne matoon na cent mille personnes téeméeri junni ci ay saxaaba aj si nañ at mooma te mbooloo mu toll noonu ci ay jullit musta daje ci benn béréb gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa it toogaat nañ diir bu yàgg yàgg yàgg jullit yi toll noonu dajewaatuñ fenn teyit nam ko waxe woon ci la mujjoon a daje ak ñoom kon loolu day wane am solo goo xam ne li muy bëgg a wax am na ko solo ndax li daje ci ay jullit musta daje ñëpp jaamu yàlla leen taxaw jóg ab yonent taxaw ci seen kanam di wax kon li muy wax lu am solo mu ne yéen nit ñi xam leen ne seen alal seen deret araam na ci yéen ba keroog ngeen di dajeeg seen borom araam na ci jullit bi muy tuur dereti jullit araam na ci jullit bi muy lekk alali jullit ba keroog ngeen di dajeeg seen borom ni mu xaraame mu ne leen mooy ni seen bisub tey bii xaraame muy bisu arafa ni seen weer wi xaraame muy weeru zul xijja muy ni seen dëkk bi xaraame muy màkka mu ne leen kon loolu lu xaraam la foofa la yonente bi sallallahu alayhi wa ci doomu aadama ñoŋal alali doomu aadama su ko waxtu bi may woon ba nga delsi ci li nit ñi dund ci kaw suuf ci tuur deret ci doomu aadama ak ci faagaagal seeni alal ak alali ay réew sax ak liggéey ay ngànnaay di def ay budget yoo xam ne ci ci ay ngànnaay yoo xam ne tuur dereti doomu aadama rek moo ko tax a jóg su ko waxtu bi mayoon bañ taxaw ci danga nga dégg kon ay chiffres yoo xam ne li nit ñiy dund tey sore na ak déclaration yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg ca ne yéen nit ñi xam leen ne inna rabbakum waaxid seen borom kenn rek la amu leen beneen borom seen baay itam benn la loolu mooy lan mu ne yéen ñépp ci aadama ngeen jóge te aadama ci suuf lañ ko binde kon ci aadama ngeen jóge yéen ñépp kon amut kenn ku war a kenn ne ku maa la gën ciw askan loolu day daal di suulu bu leen damoo jóge gi ci aadama it ndax aadama min turaab moom it ci suuf rek lañ ko bind suuf si nga xam ne boo solee say dàll ci ngay dox ci lañ bind sa maam génn la ci kon amoo looy damoo ci aw askan amoo it looy waxe kii ne ko maa la gën ndax yéen a bokk maam te seen maam ci suuf la jóge mu teg ca ne ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki ci gën a ragal yàlla ki gën a tedd ci yéen fa mooy ki ci gën a ragal yàlla mooy kii def ndigali yàlla di bàyyi ay tereem mu teg ca ne kadib arab gënul ka nekkul ab arab lu dul ci ragal yàlla jamono yoo xam ne ragal yàlla googu am na nee na arab ak leneen a ca yem ñépp ci kanam sun borom tabaraka wa taala li muy xool mooy ka ragal yàlla ak ka ragalut yàlla ku ragal yàlla moo gën mu teg ca ne xam leen ne nag lépp loo xam ne caddo gi ñoo ko tëroon di ko doxal ay jalgati nekk ca ak i lor ak i yàq mu yàq alali doomu aadama yàq deretam yàq ay valeur xam leen ne loolu suul naa ko bés nekk tey fii ma taxaw fii ma taxaw nii ma taxawee ci sama kaw dàll yi noonu laa taxawee ci kaw luwaay yi nga xam ne caddo yi tëroon nañ ko lu ma jiitu loolu doon lu leer nañ mu ne riba bi nga xam ne caddo yi dañ ko daan tër muy booy leble leble benn ñu far fay la ñaar nee na loolu far naa ko bis ne tey mu ne riba bi may jëkk far nag mooy ribaab abbas ibnu abdul muttalib kooku bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook baayam ñoo bokk mu ne ribaab bi may jëkk a far jëkk koo effacé mooy bu abbas ibnu abdul muttalib abbas bokk na ci borom alal yi nekkoon makka yi nga xam ne li mu daan liggéeye bu jekkee ba jamono jafe ku soxla da ngay ñëw mu lebal la bu la joxee fukk nga dem bay wala nga dem sàmmi booy fay boo dikkee fay ñaar fukk loola doonoon liggéeyam kon yonente bi sallallahu alayhi wa bi muy tëgg luwaab effacé tooñ googu wane ne ku lebleeti benn nañ ko fay benn ku leble ñaar ñu fay ko ñaar ci baayam la tàmbalee kon mu wane ne luwaa la boo xam ne du bàyyi kenn ci xeet wi du bàyyi kenn ci askan wi tooñaange googu nag ak riba ni muy doxe tey ci àdduna ak ni muy faagaagale alali réew yi su ko waxtu mayoon bañ taxaw ci kon danga xam lan moo dox diggante lislaam ak leneen lu dul moom mu teg ne na ngeen dénkante lu baax ci jigéen ñi na dénkante lu baax ci jigéen ñi ndax ñoom kat yàlla moo leen def ñi doon seeni ndimmal maanaam seeni soxna ak seeni doom yu jigéen seen soxna yooyu mu ne dangeen leen a jël ci kóllëre ak seen boroom fekk lu xaraamoon ci seen diggante ak ñoom yàlla daganal ko ci kàddug yàlla goo xam ne moo ko daganal kon ñooñu na ngeen leen fonk na ngeen leen sàmm na ngeen leen woo ci aw yiw waaye na ngeen di dénkante lu baax ci lu aju ci mbirum jigéen nga xool ñi taxaw tey di woote euh, àq jigéen ñi ñi di ci wax guddi ak bëccëg ay mouvement ay organisme taxaw yenn yi ci nekk di wax àqi jigéen àqi jigéen guddi ak bëccëg lislaam moo leen jëkk a jox xam àqi jigéen moo ko jëkk tasaare moo ko jëkk a jàngale yu mel ni li ñuy woote tey di wax ne jigéen fu mu taxaw fu ne góor daf fa war a taxaw lu def lu ne góor jigéen da ko war a def lu góor def jigéen da ko war a def loolu luy jaxase la luy jaxase carte la kenn ku ci ne dafa am liggéeyam buñ ko jox boo xam ne mooy cosaanam coono mën naa ñëw nag wala jafe-jafe am lu muy def loo xam ne kële moo ko waroon a def ndax jamonoo dem ba jafe waaye sudut loolu lay cosaan góor ak jigéen niñ mel ci nit mooy ni ñaari dàll mel kenn mënu cee ñàkk dangaa am dàllu ndeyjoor am dàllu càmmooñ ku ci nekk tànk ba ko war a sol moo koy sol jamono yoo demee nag ba ne lépp a war a yem ba jël sa dàllu càmmoñ sol ko ci sa tànkum ndeyjoor jël dàll wa ca des sol ko ca tànk ba ca des génn di dox ku la seen danaan kee wérut la nga sol nag lu mu rafet rafet du teen danañ ne kee wérul askan yi nga xam ne ñoo jiite woote lool nag muy tubaab yeeg ñi leen topp ci suñ jamono tey dañoo dem ba mel noona ba tàmm ko kee wérut ja tasaaroo ba mel ne ñàkk wér sax far moo mel ne moo di wér far ñu wëlbati ko di ko tasaare ci xeex xeet yi nga xam ne yàlla da leen a baaxaloon terale leen lislaam ñu war a dund seen lislaam ñu dem ba bëgg leen a fàttaloo seen diine bëgg leen a delloo ci dund leneen loo xam ne kenn xamut lu mu doon ci àdduna borom bi tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu teg ca ne xam leen ne da ngeen dajeeg seen borom yéen ñëpp maanaam kenn ku ci ne day faatu mu ne man su ma génnee àdduna bàyyi leen fi bu leen soppiku mukk soppiku goo xam ne day àgg ci ngeen di tuurante ay deret yadribu baadukum baax baad bu leen àgg ci mukk di reyante kon rayante gu mën a am ci kaw suuf ci diggante ay jullit kooku génn ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu teg ca ne li ma leen di wax nangeen ko takk bu baax a baax ndax day jot naa liñ ma digaloon ma jot ko bàyyil naa leen fi yaar yoo xam ne li feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer ba mukk bàyyil naa leen fi yaar yoo xam ne li feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer mu ne loolu mooy téereb yàlla bi ak sunna si yonentam bi kitaab allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ñaara ngoog yoo xam ne li feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer kon yàlla na yàlla baaxe nu jàpp ci ñaar yooyu lislaam kon bu ñuy wax ne droit de l'homme wala aqi doomu aadama jullit bi dafa gëm ne ci diineem la bokk yàlla moo ko tër santaane ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko leeral jottali ko waaye droit de l'homme ci lislaam dikkul dikkul ci kaw ne ay marche a jóg ay manifestation ay nit ñuy taal ay kii bañ ne kon ñii nañ leen jox seen àq loolu indiw ko ci lislaam waaye nit ña dañoo toog ci seen sago seen boroom wàcce li doom aadama yeeyoo ne leen lii moo baax ci yéen ñeenteelu taxu seetlu bi moo di ne aar doomu aadama ak yëkkati ko ba mu mat nit sharia al islaamiya dafa ñëw ngir loolu sharia li ko tax a jóg mooy aar doomu aadama ak matal ko ba mat lam doon loolu nag moo tax sharia dafa jiital lu ñu tuddee juróomi yëf yoo xam ne ay fondamentaux la yoo xam ne mënta ñàkk ci dundu nit ki mooy jën yi nga xam ne ci la mbaar mi taxaw wala poto yi nga xam ne ci la tabax bi taxaw noonu la ñuy aare doomu aadama waaye suñ aarul yooyu doomu aadama ji du aaru yooyu mooy yan lislaam bi mu ci jiital mooy xel xel mi dañ ko war a aar ñaareel bi mooy diine ñetteel bi mooy bakkan ñeenteel bi mooy ab der ab der juróomeel bi mooy alal yii dañ ko war a aaral askan wi waaye kenn ku ne it dañ la ko war a aaral loolu nag lislaam dafa def lépp ngir aaral ko doomu aadama yi ndax seeni société mën a doon société yi jàmm kenn ku ci nekk mën a dund ànd ak sécurité bi nga xam ne moom nga war a am moo tax boo xoolee même sanction yi nga xam ne l'islam daf koo teg nit ñi maanaam géttan yi nga xam ne ku def dara ñu def la dara boo ko seetloo aar yooyu moo ko tax a jóg lan moo tax l'islam ne ku rey nañ ko rey pour aaral nit ñi seenu doom seenu dund walakum fi lqisaasi xayatun yaa ulil albaab loolu la borom bi wax nee na fayantoogoo gi nga xam ne boo reyee te tey ñu rey la loolu moo leen di joxuk dund ndax seetlul ne kii bu reyee kenn ñu rey ko mën nañoo toog ay at kenn duuti ñemee rey kon aaral na ñooñu ñëpp seenub dund waaye bu fekkee ne ku rey ñi ne nañ ko bàyyi mu dem wala ñu dugal ko ci kaso boo xam ne lam fay dunde moo gën lam doon dunde ci bitti wala nam fay nekk ci ak càggante noonu la ko bëggee woon kon kooka loola du ko aar ba bu génnee du reyaat kon li tax lislaam ne ku rey nañ ko rey pour aaral nit ñi seenu dund lu tax lislaam ne ku sàcc nañ dagg loxoom pour aaral nit ñi seeni alal ndax alal dafa bokk ci juróom yi nga xam ne des ko war a aaral nit ñi lu tax ñu ne ku njaaloo nañ ko teg sanction boo xam ne benn mu doon rey su fekkee ku ko yeyoo la wala mu doon ay dóor yu ñëpp fekkee su fekkee lu ko laaj la loolu pour ñu aaral nit ñi seenu askan ba du jaxasoo lu tax li ñu tudde alxiraaba muy ay bandi yu jékki jóg rek song nit ñi dal seen kaw di leen agressé ñu nañ leen teg lu ñuy tudde xaddul xiraaba nga mooy sanction bi gën a tar nit ki jóg rey nit rek wala mu jóg sàcc kooku peen bi ko lislaam teg bokkul ak ki nga xam ne dafa tey tey lu jóg yor ngànnaayam comme dajal rey la jël sa alal kooku xaddul xiraaba la ko lislaam tudde kooku dañuy dagg ay loxoom ak i tànkam ba noppi door koo rey lu tax mu def loolu pour ñi aaral nit ñi seen sécurité ba loolu menn xel du ko xalaat buñ ko defoon benn nit jeex na loolu doo déggati kuñ ko def mukk doo ko déggati lan moo tax lislaam ne ku xas nit ki xas mooy ŋàññi ko wax ci moom wax ju ñaaw wax ne njaalookat la wala naankatu sàngara la wala yàq ab deram lislaam dane nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar loolu lu tax pour aar deru jàmbur kon nit ñi xam ne liberté yi ñuy wax na liberté expression wala liberté d'opinion tur yi ñu koy jox jàpp nit ki lu ko neex sañ naa wax loolu amut amut ci lislaam ku ko ma andil nit ñi it fit na nga leen di andil waaye nit ki nañu te jël derub jàmburam jàmbur lu ko neex mu wax ci loolu amut ci lislaam lislaam dane ku ko def nañ ko duma te suñ ko dumaa duma yoo xam a ñépp ko fekke bu yi ñépp danañ téye seeni làmmiñ ci deri jàmbur yi kenn du wax loo xamul lislaam bu nekku naan sàngara nañ ko dóor wala dorog wala mu jëfandikoo lenn lu yàq xelam kooku aara xelum doomu aadama moo tax juróom yooyu nag bépp loi bu ñëw te aaralu ko nit ñi nañ xam ne kooku sàmmantewut ak li ñu tudde droit de l'homme ndax boo xoolee li nga xam ne mooy am ci jalgati yi am ci xaqi doomu aadama yi ci ngay xamee wuuteeg lislaam ak leneen lu dul moom bul fàtte ne jullit bi jamono yi muy gëm ne dañoo war a aar deret jullit bi dañoo war a aarum xelam dañoo war a aar diineem war a aar ab deram ak askanam jamono yi mu koy gëm di ko def daa gëm ne day jaamu yàlla kon loolu moo tax lislaam dafa indi ay luwaa yoo xam ne dafa dëppoo ak dund gi nga xam ne nit ki daf koy dund kenn ku ne ni nga ko bëggale sa bopp noonu nga koy bëggale sa moroom yi jàppal nit koo xamee ne demoon na ba ne léegi li ñu tudde peine de muy nit ki daal bu reyee itam buñ ko rey su xëyoon gennuk suba rek fekk jenn waay joo xam ne dafa ñëw ren di soxnaam ren di baayam ren di yaayam doomam yam jotoon a am yépp mu ren leen mu jóg yam ci moom taxaw ku def lii mu ne ko man ci xolam lan lay yëg ne moo war a dal ci kaw waa ji la muy jëkk xalaat rek mooy kii moom waratu na nekk ci kaw suuf di dox borom bi tabaraka wa taala nag buy yoonal dara wala mu koy santaane day xool nam dëppoog nam binde nit nga xam ne nii la ko bëggee mu tegale ko ko noona mu tegale ko ko noona ndax képp kuy xalaat loolu naan dafa diis ci nit wala dafa metti kooka lam def dafa dalut ci sa kaw moo tax nga di ko wax waaye bu dalee ci sa kaw rek nga yëg ne luñ ko def lu nekk yeyoo ko kon moo tax lu gën a bari ci ñi nga xam ne ñooy faral di teg waaye yooyu nga xam ne mooy woyo wala fal falal kàccoor yi seenu kàccoor mooy fekk ñoom aaru nañ ba mën nañoo mucc ci ay agresseur mën nañoo mucc ci lépp loo xam ne luy lore la su ko defee ña ca mbedd ma nag amuñu ku leen aar amuñu ku leen défendre ñooñu ñooy am problème ku la rey duñ ko rey ku la def lii duñ ko def nangam kon yooyu ay mbir la yoo xam ne dafa wutale lislaam ak leneen lu dul moom moo tax aqi doomu aadama ak niñ ko déggee ci jamono rawatina ci déclaration yi nga xam ne moom la ñuy woote sabab na yàq yu bare bare bari tey ci kaw suuf ñi tudde ko ni lii droit de l'homme moo moom lañu ñu war a défendre ba tax ñi daganal yoo xam ne dafay xañ nit ñi seeni àq boo xoolee riba ak ni muy faagaagale alal xool jëflente yi am ci wàllu alal yi ci nekk ci yoo xam ne dafay faagaagal alali kenn ki ki ci des mu jox ko lu dul jeex yooyu yu dul jeex la yooyu yëpp ci turu ne nit ki sañ na ko parce que am na liberté ci nu ko neex mu jëndee nu ko neex mu jaayee nga xool lu jëm ci liy dox ci diggante góor ak jigéen li fi nekk ci xeeti yàqute waaye ñu ne comme que ñaar yi mag lañ lu leen neex sañ nañoo def kenn du leen ko tere dafay nekk ci xeeti yàq kenn xamul nu mu toll foofu loolu lépp leen lu ci ne ci liy yàq jikko yi ci la bokk kon mën nañoo wax ne ak déclaration boobu yi nga xam ne 1948 la woon ba léegi gisagun nun lu mu indilal doomu aadama yi loni ci at mi weesu dañ ne gannaaw ñaari téeméeri at lañ doon feetal yoo xam ne dañ ne ci lañ jeex déclaré woon ne ak njaam jeex na ci kaw suuf waaye lan mooy résultat ba am na benn déclaration boo xam ne même loolu ñoo ko def ñu ne ba léegi dix-sept mille personnes ci ay nit yoo xam ne dañ leen di jaay ci kaw njaam ba léegi at mu mu am fukki junni ah sabu miati alf lañu juróom ñaari téeméeri junni juróom ñaar téeméeri junni nit yoo xam ne at mu ne danañ leen jaay ci kaw njaam loolu ba léegi mi ngi ci kaw suuf kon déclaration boobu lan la indi te boo xoolee lu ci ëpp ñi leen di jaay mooy ña defoon déclaration boobu nga xam ne ñoo am doole wala su leen ñeneen di jaay ñoom ñoo leen di jënd ba léegi fukki junni ak juróom-ñett ci ay xale wax nañ ne bis bu nekk ñi faatu ci ab xiif dix-huit mille personnes bis bu set ci kaw suuf danañ faatu ci ab xiif ak li doom aadama tey mi nga xam ne mooy woote droit de l'homme li muy fere ci ay xaj ak ay muus ak li nga xam ne ñu ngi koy fere ci ay mala yoo xam ne nit ki daanaka xaw xamee su lu mu koy jariñoo ak li muy fere ci ngànnaay yoo xam ne faagaagal lay def waaye du tabax buñ ko comparé ak loolu doomu aadama su fekkoon ne xolam a ngi dund rus lay def <coughs> ci kanam boromam tabaraka wa taala kon lislaam nim sàmmee aqi doomu aadama amut weneen tëriin ci kaw suuf woo xam ne moo ko sàmme noonu xoolal rek yi nga xam ne aqi suñ borom tabaraka wa taala julli ak koor day dem ba borom bi tabaraka wa taala woyefal ko ndax aqi doomu aadama xoola xale ba ci biirub yaayam ci biiru biirub yaayam juddoogut ñuy sàmm aqam ba nekk ki nga xam ne dafa ëmb bu koor ñëwee mën naa bañ a woor lu tax pour sàmm liir bi nekk ci biiram na bàyyi ba am jàmmam door a woor ndax am na kenn kuy sàmme ak doomu aadama ba àgg foofu kii nàmp juddu bay nàmp noonu lislaam nee yaayam bu koor ñëwee mën naa bañ woor ndax doom ji dafa war a nàmp te bu wooree lim war a am ci soow du ko am xoolal nit ki tukki moo xam góor la wala jigéen ñi xam ne tukkeem bi bu sori la tukki li gën a bari nit ki da cay sonne ñu ne ko coono boobu tax na yàlla mi la ne woon wooral nee na la bàyyil koor gi ndax sa tukki bi sàmm sa wér gi yaram sàmm sa jàmm wattoo tàbbi ci ab coono bu metti bu koor gi jàllee nga door a nga door a fay ànd ak ne yooyu ay jaamu yàlla yu borom bi tabaraka wa taala fonk la ki nga xam ne sax dafa gis reegal wala mu nekk di wasin nga xam ne deret ju bari mën naa génn ci moom borom bi tabaraka wa ne ko bul woor bul woor lu tax sàmm wér-gi yaramam ak sàmm yëg-yëgam ba koor ga jàll mu door a fay kon jan diine moo mën a wone lu mel nii yan luwaayu doomu aadama di teg moo mën a wone lu mel nii ba àgg ci droit yi nit ki ci boppam bu xawee safaanoo ak yi nga xam ne moom la ko borom bi tabaraka wa taala santoon mu ne ko wàññi lii ma la santoon kay tukki sax mu ne ko jullil ñaari rakka waaye bul jullee ci ñeenti rakka kon ma ne jooju diine doonu diine joo xam ne eh, su amoon ñu ko taxawu dund ko leeral ko kon ci kaw suuf doomu aadama danañ yëg ne seenu texe ak seenu dund dund gu baax ci dund diine jooju ci la nekk moo tax borom bi tabaraka wa taala ne wa laqad karramna bani aadama teral nan doomu aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa razaqnaahum fuñ bëgg ci jéeri ji ak ci suuf seeg ci jaww ji fuñ fi bëgg yóbbu nañ leen fi jox leen fa seeni wërsëg yoo xam ne yu teey la wa faddalnaahum ala kathirin min man xalaqna tafdila liñ bind liñ bind lu ci bari doom aadama moo nu ko gënal kon loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala wàcce ci doomu aadama ay tëriin ak i njàngale yoo xam ne su ko dundee day texe fii ci àdduna ëllëg mu texe ci àllaaxira yàlla na suñu borom tabaraka wa taala boole gindi ba nu dégg suñ diine ci nam gën a rafete na ko borom bi tabaraka wa taala gën a bëggee te dunde ko noona borom bi tabaraka wa taala baaxenu ba nu sax ci loolu ba dund ci ba fekki ko ëllëg mu tàbbal nu àjjana rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l xasana wa qina azaba annar